sëriñ Dame Soda ñu ngi lay nuyu bu baax wal fajiri eh, di la nuyu ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi lay déglu ñu bàyyi la nga nuyu ak eh, auditeurs yi ak yi déglu ci réew ak biti réew. waaw bisimilah rahmaan asalaamaaleykum wa mhm. ñu ngi leen di nuyu bu baax. yéen ñi nga xam ne yéen nekk foofu si wal fajiri. Mhm. di leen jottali nuyu sëriñ bi. mboolem ñi nga xam ne ñu teewlu te di ñu déglu. Mhm. di ñaan sama borom defal ñu jàmm ak tawfeex. Mhm. barke moom Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. d' accord. jërëjëf ok jërëjëf sëñ Dame ginnaaw bi ñu nuyoo sëriñ yàgg te ànd ak wér moom tamit ci taxawaay ak liggéey bu am solo bi nga xam ni moo ngi koy taxawee eh, ginnaaw eh, biñ ko ko joxee léegi nag moo am ay yëngu-yëngu yu bari yoo xam ne mi ngi am ci biir dëkk bi te ñaari suñu doxin moom day doon loo xam ni lu yëngu ci kër rek au lieu ñuy wax dañuy woote ñu nekk foofu ñu xam version yi nag bari na ginnaaw bi ñu nee doon ngeen def ndigalul sëriñ bi ba bakkan rot ca am na yu bëree bëri yoo xam ne daal waxee nañ ko noona léegi ginnaaw bi ñu leen jaalee eh, ki faatu ci yéen yan leeral nga mën a indi ci mbir yi xew waaw waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax waaw noonu ngeen ko waxee. Mm-hmm. Euh, liggéey bi moom kenn ku ne xam ni ndigal lu bàyyi ko sëñ Muntaxa la ñëw si sëñ Amdi Fall. Mm-hmm. mi nga xam ne mooy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. bi mu ñëwee ni ñu ko xamee ñun ñëpp yàgg nañ koo wax. bi ndigal li ñëwee sëriñ bi da koo bokk ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima. ndax dafa kenn ku ne daa yónnee si yow ndaw xamal la ndigal li. sàkku nga ñëw ànd koog moom. ñoom ñëpp ñu ñëw wuy si ko si ànd ak moom si ndigal li ñu def ko ay kuréel yoo xam ne mboolem njabootu Cheikh Rafal gaa ngi si muy fukki buntu kër yi ak benn kenn ku ne yaa ngi ci biir kuréel gi tànn nga tànn nga ñoo xamante ne ñoom nga tànn jox ñu ko ñu ànd ak yow si liggéey bi mooy fukki buntu kër yi ak benn li dale si kër maam Saliou Fall moom daaru xafoo doon rakk Cheikh Ibra ba si kër sëriñ Ngunda Fall mi nga xam ne mooy caatu maam Cheikh Fall Mm-hmm. ak mboolem seex yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal mooy képp koo xam ne ab seex nga te bokk ci kër Seex la mm-hmm. waaye sëriñ bi waxoon nu yaatal ko ci mbooleem nag mbokki taalibe yi muy mbooleem ñi nga xam ne seeni maam mm-hmm. dañoo bokkoon ak Seera Faal ëttub Sëñ Tuubaa di liggéey ñenn ñu ci bari ñu dem ci ñoom dëgg la xamal leen ni liggéey bii ndigal lii kat sëriñ bi daa jaar bunt bi ci Seex Ibra waaye ñépp ko bokk lu jiitu loolu ñu demoon si mboolem njabootu sëñ tubaa ji ñi nga xam ne ñoo bokk ak sëñ muntaxaa sëñ tubaa kenn ku ne ñu dem fi yow it xamal la ne ndigal li ni ni nu ko sëriñ bi joxe ak ni nu xalaate ni doxee doxale ko noonu mooy li nu sëriñ bi digal joxoñ ñu ko mm-hmm. ñu waxtaan si ak ñëpp rek bañ am si mu mel ni mm-hmm. ndigal li moom umpul kenn ñëpp yëg nañ ko bi loolu jàlleet yaatal nañ ko si mbooleem taalibe yi mbooleem àdduna fu nekk ci àdduna yaakaar naa ne bu fekkee ni Touba ñor na la. Hmm. ndigal li sëñ ñor na la dégg nga ndigal loolu te xam nga li si sëriñ bi bëgg ak lim si jublu. Hmm. ndax liggéey li moom du lu yees yàgg na sëñ Touba ko bëggoon si dëkkam bi hmm. Cheikh Modou Moussa ñëw di ko suuxat. ba mu egsi si seen Cheikh Modou Mountakha. moom it muy dundal loolee mooy ñu sàmm war may dëkk bi ak war may ñi nga xam ne ñooy njabootu sëñ Touba gi. d'accord loolu nag bi nu ko sëriñ bi santee ñu nekk si. dañ koo def ay kuréel. boo ko seetee buñ bëggee dem rek si liggéey bi dëgg-dëgg. waaw mooy dañ koo yaatal dañ koo tasaare si semaine bi bis bu yàlla sàkk bis bu nee ci semaine bi lundi ba dimanche. Mhm. bis bu set am na kuréel goo xamante ne kii ñoom ñooy xëy nekk si saytu boobu. Mhm. terewul nag yeneen kuréel yépp ñoom it ñu ngi taxaw waxtu wuñ leen wooyee fenn ñu jóg fekk si leen. d'accord li xew démb nag. Mhm. wala bëkki démb. Ah, dafa am bërëb boo xamante ne bii dañ faa demoon saytu ko lu jiitu loola. Mm-hmm. saytu ko ba gis ni daal am na lu fay xew wala lu nu fay def loo xam ne méngoowul ak li nga xam ne moom la sëriñ bi digle mm-hmm. bañ ko saytoo ba am si lu wér mm-hmm. si lañ ci la kuréel gi nga xam ne ñoo waroon a jóg si lañ jàpp ñoom ni dañu fa war a dem kookee nga xam ne wala ñoo ñee nga xam ne ñoom ñoo ñàkk tënku si loola ñu interpeller leen indi leen si kër sëriñ bi su ko defee ñu waxtaan ak ñoom si nu ñuy def ba mooy bàyyi loolee loola moo fa yóbbu woon mbooloo mi ba ñu fa demee nag ba am si ñaar ñoo xam ne jàpp nañ ni ñoom ñoo doon def loola ñu téye leen mhm. bi ñuy génn nag si la ñoom ña sa biir nag daal di xam naa ni seen deret yëngutu mhm. ñu daal di am am xalaatub daal jàmmarloo ñi nga xam ne ñoom def nañ li ñuy def ba wan leen ginnaaw mhm. si lañ tàmm si lañ jël nag ay kiwit bi tiire ay bal tiire nañ ñaari bal yoo xam ne dañ koo tiire si kaw fekk booba ñu ngi jàkkaarloog mbooloo mi ñenn si mbooloo mi waaye booba lëndëm na waaye ñoom boobaat ñoom ñi ngi seen mbooloo mi waaye mbooloo mi ñoom ñu leen mhm. te doonuñu mbo doonuñu woon mbooloo mu bari moo xamante ni mii mhm. moom mën nañoo doolu ñu wax lépp mbooloo ma mën nañ ko ndax benn groupe moo fa demoon d'accord waaw donc bi bi mu bi mu dóoree ñaari bal ci kaw mhm. ñetteelu bal bi nag si la visé benn murit boobu nga xam ne moo wàcc muy Moustapha Niang fekk booba bi mu tiiree ñee ñenn ñi dañoo reculer waaw waaye moom comme lëndëm la te ñoom yoruñu woon ay ngànnaay mhm. yoruñu fetal mhm. te ñi ngi leen di tiire ay bal mhm. te lëndëm na ñoom li leen yoon santoon mooy ñoom ñu reculer waaw waaye sëñ Moustapha moom it bokk si ñi nga xam ne xam naa njàmbaar gi waaw euh, ak ndax ba moom moom bokkutoon si ñi nga xam ne ñoo wala bokk xaw naa xaw naa gënoon naa jege daal ki nga xamante ni kii moo yoroon moo yoroon ngànnaay loolu d'accord waaw te njortul woon ni sax loola moom dana ko def si la daal li soqi bal bi si kawam. Hmm. bi mu ko soqeet ci la si la si la daanu. bi mu daanoo. ñi si ginnaaw ñi woon si ginnaaw daal di dikk jël ko àndale ko. Hmm. ndax booba bëggunu leneen xew si moom te it bëggoon nañoo xalaat ba xam mën nañ koo sauver wala déet. ndax hmm. jàpp nu woon ni sax eh, dafa faatu ndax xam nga balu fetal moom dafa gaaw. waaw bi nu ko xëccee nag ba mu sori tuuti si lañ gis ni kii nag moom. Eh, mu ngi aw si yoonu ñàkk bakkanam ñun nañ ko jekkalee ba mu jekk nag ñoom it dañoo continuer di di di di di di tiire ay bal ñii tamit nag daal ne gannaaw ñu ngi tiire nag ñoom it nañ daal di riposter euh, lépp daal noonu dong la demee ñoom li li li euh. ngeen leen fekk te sëriñ bi di ko aaye dañ ko doon tux wala dañ ko doon jaay loolu lu doon jaay la foofu moom dañ dañ ko fay jaay d'accord ndax ndax ndax laataa ñu fay dem mm-hmm. dañ faa yónni ay dañ faa yónni ndax ñun dafa am yoon wu ñu liggéeyee mm-hmm. bu ñu bëggee saytu dara si barab mm-hmm. ñu dégg ko fa wala dara mm-hmm. dañ fa yebal ay ndaw yoo xam ne buñ fa demee duñu xam ne ñii ci ñoom ci ñun la bokk moom am na ñu fa dem ñaari yoon ba ñetti yoon ñoo xam ne dugg nañ fa jënd ñu jaay leen d'accord loolu nag ñooñu jënduñu ko woon ngir di ko jëfandikoo dañ doon jënd pour xam dëkk dëkk ba xam fii dañ fiy jaay wala déet am si lu wér ah, waaw waaw ah, laa tax ñu ñu dem fa waaye moom li suñu liggéey bokkul si ñu tàbbi si dem si ay kër di saytu. d'accord waxtu bu ñu duggee si kër rek dafa fekk ni. Ah, booba saytu nañ lu fa nekk ba xam ni loola ma nga fa si bu wér. ñu soog a jóg tàbbi foofa. ndax ñi defoon jëf jooju jàppees na leen ci waxtu wi. waaw ñooñu moom yoon teg na leen loxo ñoom ñu ngi gendarmerie. Mhm. waaw jàpp nañ ci fukk ak benn. Mhm. yoo xam ne fi mu ne nii. waaw ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci loxo loxoy yoon. doxal yoon. waaw ah, ñoom ñu si loxoy yoon. waaw baax na. Mm-hmm. baax na sëñ Dame Soda Fall am na ñu mbégte euh, lool ngir déglu li xewoon fële ndax wax ji bari na ci réseaux sociaux yi mais nii moo gënoon nag yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci mbir mi te ñu jox leen liggéey bi ñu déglu leen kon am nañu mbégte bu baax ci euh, leeral yi. waaw jërëjëf nii dafee baax ndax dem ba léegi li tax wax àdduwuñ si dañoo amutoon ndigal. waaw ndax ñun gannaaw dañ ñuy liggéey loo rek suñu defee li ñuy def ba noppi. ñun ñoo diggee woon ak sëriñ bi ne buñ ci faatoot ñun dañuy jàpp ne dañoo sayit rek. kon bu que kon demee ba loolu am si kon duñu duñu duñu duñ ci am baat lu dul ni dañ koy delloo sëriñ bi nga xam ne moom moo lu doon liggéeyloo. d'accord moom nag la doon déglu ba démb si bëccëg mu xamal ñu ne ñu. Hmm. daal léegi li li si am lépp yëg naa ko. Hmm. kon yéen na ngeen dem toog te déglu ma li si war lépp dinaa ko def. baax ñun nag ñu ngi si ndigal loolu rek. mboolem njabootu Cheikh Fall gi ñu ngi toog di déglu. ndax euh, loolu la ñu diggee ak moom moo tax it defaatuñ benn at acte. Euh, waaye loolu moom ñun manoon nañ koo saafara suñu yoonu bopp waaye nag dañoo moomut suñ bopp. dëgg la moo tax faaw dañuy toog déglu sëriñ bi rek. baax na kon groupe Walfadjri ci sama kàddu ñoo ngi leen di jaale ki faatu. jërëjëf jërëjëf ñun ñu ngi koy jaal di ko jaal ay bokkam ñëpp jàmbaar la woon lool amoon na ñaari soxna ak ñaari doom. ndeysaan waaw ah, doon murit bu jàmbaare. waaw yàlla ko suñu borom dajale yërmande amiin incha allah. waaw waaye sëñ Mountakha ñu ngi koy sant bu baax ndax moom it taxawu na lépp. Mhm. waaw ba si ñaan génn ko war a ñaanal lépp def na ko. jàngalu na ay kaamil ne nañ ko ko jàngal moom si boppam mu def ko ñaanal ko wax si moom eh, wax dëgg yàlla ab sëriñam bi mu yaakaaroon. Mhm. Euh, wax si moom seere yoo xamante ne si ku ko dégg rek te dib taalibe sa xol sedd na. alhamdulilah am nañ loolu yaakaar si moom yàlla suñ borom dajale ko yërmandeem ak njëkkalam. amiin amiin di leen